يا الله xare Badar la ñëw leen dem ba ko ko si kaw sun fa la ñuy naane leer ya ya Allah ñoo nañ ziyaara ci kenn ci nit yàlla ci benn ci béréb ci bérébu من في شي كوسي يخلى ما يمن من باع الفايدة فن مو كوسي ما يفي باي ذاك في القران تكو سوف فن مو كوسي ما يفي باي ذاك في غامي تكو سوف ابن فابي زياد ما كان كي باي غرم بات وقت تايب نان قول كيف تجلس يا رمم سجل سيارة أرام السفرة naxuli toppeem ruuslawul sëriñam bàññees gërëm na ko ba gërëm ñi ko topp Mawlana Cheikh Ibrahima Fall waayu baay kii moo jar a bëgg ci ndigalu xalifa général de la Fayda Tijaaniya Cheikh Mamadoul Mahi Ibrahima Niass ak ci ndigalu xalifam bu tedd bi Cheikh Baye Fall bi boroom kàddu gu neex mi nga xam ne boo ne ko jàkk xam ne nitu yàlla piir la ak ci ndigalu Cheikh Ahmed Damka magu taalibe yi ci toppam maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo am mbégte di leen yëgal ziare bu mag bi ñu baaxoo amal di ko defal ki jaru njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall mi bàññees waxoon ne jëmmam ruuxul ëdëb la ziare bi àjjuma lay doon juróom-ñaari fan ci weeru janvier ca Kosibaay mbokki julliti mbokki taalibe yi ñi safo ki bàññees waxoon ne suñu ma bindoon ci xalimaay koy toppee maam Cheikh Ibrahima Fall lay topp nañu ko topp te dem ca Kosi Kosibaay 7 janvier 2022 jaare maam Cheikh Ibrahima Fall taalibe yëpp joxante fa ndaje programme bi nii lay tëddee 9h ñu wàccee kambil ba 13h ñu dem xewlu ji 14h ñu julli aljuma 17h ñu dellu si wat ci base bi tàmbale ziyaare bi Cheikh Ahmed Damka magu taalibe yi mu wax ci turu taalibe fa teew buñ ci noppee jox Cheikh Baye Zeynabou Fall mi nga xam ne taalibe yi miin nañ ko ci kàddum gu neex ga mu dénk leen digal leen gannaaw ci nag ci la ñuy doo ko jox xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall bii di Cheikh Baye Fall lii bi mu dénk taalibe yi ñaanal leen jox leen digg daje ba déwéen ziyaare baa ngi noone bu ko kenn wuute kan lañ ziyaati mooy ki nga xam ne Baye moo wax ne su yàlla dundoon ci xalim ak toppe kenn laay topp mooy Ibra Fall kon kooku lañ ziyaare ci fan lañ koy ziyaare nag fii ci Kossy

liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy